jàmm ñi nek ci kaso yi nga xamne aussi erreur judiciaire ak génne nañu deful mo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa war den seen i ñi de dëddu àdduna suñu borom xale leen àjjana fi daw ci gars yi te on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité on continue actualité bi ñu fas wax na ne ki xamne moy ne mooy Ilimane Gaye pour son sixième Mbaye Diagne ci claque un 5e Pape Alioune Ndiaye et son 2e respect pour Cheikhou Kouyaté Abdou Diallo qui marque mais un but litigieux et aussi John Lopi qui marque des points l'enfant du Sénégal lolu lañ fas yéene waxtaane mais d'abord yi xam ne donc final

du joué gars yi nag ne nañ amuñu yaakaar mu daal di joué waat ak waa ci fii coupe du monde bi même coupe du monde boo xam ne sax wóorul mu joué ko bu fekkee ne blessure bi nii la méttee mais ki xam ne mooy Zlatan Ibrahimovic nee na damay am gàcc damay rus a xool ki nga xam ne mooy Franck Ribéry ci gët ndax li nga xamne moy ballon d'or bi xam ne daf ko waroon a gagné ñu jël ko jox ko keneen keneen kooku nak gars yi xam ngeen kan la mom nak nee attaquer wu ma kenn dama wax deug rek loolu nag Zlatan Ibrahimovic moo ko daal di wax pendant ça aussi une autre légende du football mondial ki nga xamne ne aujourd'hui pour moi c'est l'un des ou le meilleur attaquant du monde muy Ronaldo et le phénoméno dafa am benn documentaire bu ñu def nak mu dem présente ko yi nga xam Fiorentino Pérez ak également les joueurs du Real Madrid parce que mettre tamit di relaté passage du côté donc de la Casablanca convoqué pour le Classico diggante FC Barcelone et Real Madrid le retour de Jules Koundé qui va retrouver son poste de défenseur central également Jules Koundé bi nga xam ne manqué na mu ak Araujo fait match nga xam Barça joué na ko et aussi le retour de Memphis Depay mais Memphis Depay du ñëw ci li nga xam Classico bi après Classico bi match bi stop dans le lañ jàpp il sera de retour mo mi nga xam aussi dafa am ab gañu l'attaquant de la Hollande, Pays-Bas, futur adversaire du Sénégal. pendant ce temps également King nga Edinson Cavani Fitne, na Valence parce qu'aujourd'hui il a marqué son premier but Monek Nak, le cinquième sud-américain pour ramener dans les quatre grands championnats au 21e siècle King Edinson Cavani vers une défense à 4 pour le Paris Saint-Germain classique au PSG Olympique de Marseille au Parc des Princes Paris Saint-Germain avec des bàyyi défense à 3 défense à 4 parce qu'il que les défenseurs ils sont indisponibles Moui Ramos également qui l'a ramené ne Kim Kimpembe donc Danilo Akili donc euh, Marquinhos ñoom ñooy ci défense mais aussi vous allez voir Fabien Ruiz qui va peut-être jouer au milieu de terrain milieu à 3 Vitinha Verratti Fabien Ruiz en attaque Neymar Messi Kylian Mbappé l'on a mën l'équipe qui l'a ramené, nga à Paris Saint-Germain qui koy sur le plan du milieu de terrain également de l'attaque occasion manquée pour ñii di Lorient Lorient à xam ne tey bu provisoirement premier du classement Voilà pour jege ci kaw Lorient nag dafa témboo ak ñi nga xam ne mooy Reims bu ñoom Dion Reims bu ba carton rouge mais le Sénégalais a fait un match correct un match de gagner, un match comme on dit de champion gaynde bëggul il y a plein tey kii di Dion Djolopi, je le dis sûrement mais lentement ce gosse est en train de faire sa place et que boy il est l'avenir du milieu du Sénégal li ma koy des rek mooy dafay gaaw mer sinon à part ça il est excellent non, l'idée RB Leipzig n'a jamono match mais on peut noter qu'il y a Abdou Diallo qui a joué titulaire à la place de Guardiola Abdou Diallo qui prend des galons du côté long de l'Allemagne notamment aussi du côté du RB Leipzig l'attaque le défenseur sénégalais il a joué encore aujourd'hui il a même marqué un but de la tête ramener après finalement de c'est un but marqué par Rome mais ça aurait pu être mon premier but avec donc le RB Leipzig en Bundes Liga ah Abel depuis que nous sommes entraîneur ñu ngi gagné ay match Pan marque son deuxième but Pan nee na Pan si jogante bi nga xam ne Adana plutôt Demir Sport ak Kasipasa ñoo ça ñoom ñoo door 4 buts à 1 et Pape Alioune qui a marqué donc son deuxième but le milieu de terrain sénégalais bi nga xam aussi mon objectif am mooy fait ba dellu soit équipe nationale du Sénégal est-ce qu'à une dina ko waat pour coupe du monde Oui, mais il ne faut jamais dire jamais je ne pense pas mais à 80 il n'est pas certains, même 90%, des petits Coupe du Monde. Mais en tout cas, Mombi Faye, son petit bonhomme de chemin. Et pendant ce temps aussi, Mbaye gagne, puissance 5. L'homme, l'attaquant à la puissance, Tay Dougal, non, donc sur penalty. Donc, Karagum Rugmodur, Ataï euh, Sport, Momouradi Dougal, Mbaye gagne. Donc, Mbaye Amadi nous Binga Hamne, non, Mbaye gagne, plutôt, Mbaye Amadi Diagne, Mbaye gagne, Binga Hamne, donc, Mom, Alice Stéphane Kodamala Jokhon, donc 5. Am nga juróomi weer juróomi Wer, mu tey dugal juróomi ki nga xam ne Mbaye Diagne bi nga aussi il espère beaucoup ci convoi bi bokk ci gaal gi nga mooy daal di dem rëbbi du côté donc du Qatar gaal gaa ngi rëbbi sax lay wax gaal gaa ngi rëbbi gaal gaa ngi rëbbi ëllëg suba teel dinañ dem ca Qatar ay gay gaal gaa ngi rëbbi eh, gaal gaa ngi rëbbi ëllëg suba teel dinañ wax waxu Iliman Gaynde Ndiaye Gaynde bëggul moom yàpp lay tuddee Iliman Ndiaye pour son 50e match il a marqué son 5e 6e but l'attaquant sénégalais tay nak ñom seen équipe dañoo témboo 3 buts à trois buts partout mais moom dugal ñaareelu but bi Iliman Ndiaye won gars yi one love la one love love hein, le respect pour pour tout le football pour également like ki moi, est donc. Sheffield United bi ko jox chance de vous jouer mais aussi pour le Sénégal le fils du Sénégal bi nga xam actuellement gars yi ko jox opportunité pour mu wane boppam Iliman qui enchaîne moom bokk na actuellement les joueurs sénégalais les plus en forme parce qu'il a marqué son sixième but aujourd'hui aussi respect pour qui dit Kouyaté le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Sénégal l'homme de galon a encore aujourd'hui fait un match correct ni mu fekkee ne Wolverhampton moo Cheikhou Kouyaté franchement respect équipe bu dem dina nek titulaire équipe bu dem day nek titulaire militaire il peut dépanner au milieu de terrain et en défense loolu Sénégal na bu ñu gaaw a fàtte même su fekkee dañ naan équipe nationale warta que titulaire ou pas mais ce monsieur il mérite notre respect il mérite notre considération parce que ngan di maamu ponk lu maamu gaynde jaay la gars yi les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir joxe leen seen xalaat ci li nga xam ne nag suñu week-end prolifique pour plutôt prolifique pour nous gayné yi nga xamné ne ñu sen bop way leen di like et surtout surtout gay yi way leen di abonné on avance ensemble dans la magie e-sport TV jaa ngeen jëf